quotidien l'observateur vox populi ak las njiitu di Macky Sall ma ngi dànkaafu askanu Sénégal nee na leen bi yokk gi nga ne moom la yokk maanaam su ko bàyyiwul te gars bu dee jëluñu seen matukaay maanaam danañu tëjaat mbir mi journal bi nee na ci état d'urgence couvre-feu ci la ñu daal di tëj li nga ne mooy frontières yi tere lépp loo xam ne jëm na ci wàllum déplacement ndax coronavirus bi du ay caaxaan coronavirus bi maanaam lu sérieux a askanu Sénégal nee na leen su ngeen jëlul seeni matukaay ñu danañu andiwaat état d'urgence couvre-feu tëj frontières yi tere déplacement bi yéen kaay gi di Walf Fadjri nee na loolee est-ce que bu ko Macky Sall defee maanaam nag du nekk loo xam ne daal giraawaali mën na saa ama le pari risqué de Macky Sall noonu la ko journal bi xëy fësale ci xëtam mu njëkk yéen kaay gi di Le Quotidien moom njiitu réew di Macky Sall nee na Tabaski gi maanaam jërul daal ñi nga xam ne ñoo nekk Dakar di déplacé wa nag bu ñu déplacé woo mën nañoo yóbbu li nga xam ne mooy coronavirus yeneen région yi jërul na ngay déplacé wu daal maanaam nag di dem di lor sa njaboota yéen a kaay gi xëy di ñu xibaar naan ñu en tout cas lii am ba desal mooy ci gare routière yi jamono ji mbooloo takko takk ñoo nekk bëgg dem tabaski ji waaye li nga xam ne mooy mesure barrière yi amul kenn koo xam ne respecté na ko ci gare routière yi gare routière yi dañoo salfaañil mesure ya fa Abdoulaye Diouf Sarr jëloon yéen a kaay gi wal fajri xëy wax ci violence bi nga xam lañu daan nañuy càmbar mbir mi yéen a kaay gi di enquête xëy dañu xibaara nan ñu violence bi nga xam ne moom la ñu nemmeeku ci bërëbu jàngukaay yi ci école yi jamono ji mbir mi dafa takkarnaase bi si mujj mooy li xew sa sinj ak sem bu ana Mamadou Talla mi nga xam ne moom la ñu dénk njàng mu digg doomu mi moom nag nee na dina jël ay daan lal ko ci ndodul élèves yi nga xam ne ñoo def góogale ñaawteef yéen a kaay gi di Sud Quotidien yi nga xam ne moo am ci université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru Ababacar Sadikh mi nga xam ne ay jamono moo nekkoon secrétaire général bu say UCS wax na ci xalaatam nee na violence bi nga xam ne moo am université Cheikh Anta bu Ndakaaru ñi nga xam ne ñooy waa kuddu ak yenn ci ay doyen ak ñi nga xam ne ñooy way politique yi ñoo ko waral ndax waa kuddu ak yenn doyen yi ak politiciens yi dañoo bëgg a récupérer bëgg a ngar dajo bëgg a accaparer li nga xam ne mooy kuréelu étudiants yi loole moo tax pëccoxoo am université yéene kaay gi dalee sëkko nee na tey bu njaay mi nga xam ne ay jamono moo jiite woon cadastre te ñu tëjoon ko ci lu jëm ci wàllum kër yi maanaam alal jullewul ji moom tey bu njaay jamono ji ma ngi xeex sa cour suprême ngir nag alalam ji nga xam ne dañu ko confisqué maanaam dañu ko teg loxo ñu daal di koy kii yéene kaay gi di réew mi ko di cee xëy séq waxtaan wu yaatu ak comédien bii di jëw këccëb daan nay wax ni nga xam ne moom la dooree lu jëm ci wàllum comédie ak jafe-jafe yi nga xam ne moom la siy la ak attaques yi song yi nga xam ne moom la ñu koy defaan ah nee na sax ay kontam am na ñoo xam ne dañuy jéem fexe bëgg koo tëj ah nee na nag du mos a participer ci loo xam ne dafa yàq li nga xam ne mooy société bi yéene kaay gi di esat xëy duñu xibaar jamono ji pare nañu ngir génne trente milliards ngir jënd Ismaïla Sarr Ferdinand Coly nee na jot na si Ismaïla saara ngir nag mu dem ci au niveau top niveau ci club yu mag yi waaye nag am di fay li mu gis nee na teel na ci Ismaïla Sarr mu dem Liverpool ndax loolee risque la ne kaay gi di sunu lamba ñu koy fekk fa Bombardier daan nay dànkaafu nag Balla Gaye numéro 2 nee na ko soo muy tuulee dinaa la kaaw ndax kaaw naa tey sën kaaw naa ceek moom Bombardier nee na Balla Gaye numéro 2 wax ji nga xam ne moo ngi koy wax bisu combat ba na ko dëggal bu arbitre bi sifflé